mustafilun mafaalatun failun àndaar a jooj xaliil masu caanat reer loolaa waral ma jóg di caway saa sëriñ seyxil xadiimi moom a defal way yu leer na ngeen ko way bu leen bañ a def ay géwél maam Samba Jaara xam na ni daam doy na géer Cheikh Babacar Janeeri wayam dootu fay kay reeki njàmme lañu fi wayoon dootu réer jantum ganeel ba fenke fi nun laay wayal te deeti man ma jekki di taafeeri weer ca masar i lañ ko gis ak ay mbiram boobee ba tey jigéen juratul googa góor yow soxna jaara yaa jaraway am nga ndam jépp ay xandeer lañu am am nga woor a tax mbusoo beñ a raw seeni kem sa doom na bokki sëriñ mbàkke moor Tuuba damoon na dam ko def ab dalam xabroom ba tax na waaju fi ñëw xol ba leer Tuuba di suuf su musul daloo ay xërëm mësee fu ko sobel ci deret jun fi tuur donantewul ci baay ak ndey ab dëkkam xëccoowu kooki ardo deful daani buur bamba jagoob dëkkam ku ko bañ bul fi ñëw mooy def ci aw nitam lu amul fii ba keer mbooloo mu ànd gëm ko di jël seeni nos jébbal koogi jagooma amul pey buur bul fas ni ay pexe ko waral nang ko gëm giñ naa ni aw nitam ma ñu ñoo ànd réer yàlla ko jox mayam gi mu yar ab julit day nangu ab dogal ko may xol ba xuur ndaxam ku yewu sax war a gis ci mbiram luy tax mu xam ni ma du day waay buur càmmam gi gaaya teela na ñëw ñépp a jof ña gàntu woon babam ba ñépp a ruur forlom yu lëw yi moonu yëfal gaaña bañ forlom yu lëw yi seen njuri xol dootu suur bamba diwaane moo mën a def ciw nitam lu law li yaaw laay manul moo di góor jawam sasin ba fii nu taxaw kenn jëmul jaw fal faraar ëppam yu mu jam bul ko diir atum sasin ba fii nu taxaw lam waxoon saayun xëyee mu gën di nu ak di leer mboolem ñi yàlla may gëti xol ñépp a gëm bam dillu seeña am gëti xel ñépp buur leeram gi këfu na ruu yi fi woon ñépp a ñëw lëndëm la fawu mu am ay gunóor xewal yi woona jëm yi tey kenn desul lem guñ ubul du mucc ci ay xonxoneer donnub yonen la boo ko moyee mooy yonen ku mooy yonen ci ay ndigalam mooy na buur dannub yonen la boo ko xëyee am ndawal jox ko seen leger yi bu leen jéema diir kuy diiritam du jam du cam su xam jam cam këraañ mbaa reer la Bamba am fëréewi gabon dun ko xam yowmal xiyaam bu yàlla ñëwee lépp leer lam ngoore fëréewi arab yam demoon gàcceel na géej te jéeri xamul lam fa ngoor lam daaj gabon wurus du ko daj cib tëggëm balwaaya buur xaroo yonenam lañ ko jóor dey xiif di mar di sooñu ci kaw ab deram bañ fal ko foofa faf ko tofal mooti biir badaam di no suur suwa di way yónnenam rab yaa ngi xiiru wëru ko te gaa ngi fuur lay bi doj asal yëngalul aw fitam nasraan yi jurugu bay lañu muy gargu gu goor bu ngeen di tëkkaleeti di lim ay sëriñ na ngeen ko ber wurus di limoo gay xandeer ber leen ku duur lim ku wicak aw param du tax mu laq ndam celefam naari góor berleen ko doora ku fi taw ay bidiw bu jant ne jaleñ sa bidiw yépp réer gam-gam le jaaduwul ku fi naw ab sëriñ na waaj ta dem gaboŋ ta dem il wiir na def ca yooya dun lafa seex bamba def ci gwéetal ak wayal yónnenam wayu leer bu dellu see fi nun te gëmam nu jàppe ko bu sëriñ fa bawal ak kajoor bu dellu see fi nun te dewul nu jàppe ko bu sëriñ bu nu woo ñépp buur dem del si gaa nii ku ko may koo fi naw réew mii la riigu woon waga añ ba dem del si gaa ngi nii ku ko may koo fi naw réew mii la riigu woon wa gosuy añ ba suur kon feete leen ndamam li mu jël jox nu tey safar gi fépp riir mën feete naag safar di ay ganam te deeti may nuwel fasa naag wépp weer suumur gëwéy na cen gisatul am kemam gaañam taseela ëpp ji dun bépp muur gaañam taseela jam rabu cey way way man mii fa ñëw ta fekk mu dem maa kereer jooy naa ko jooyi xol yu du dog way man nga waaw yi sax jotuñ li ma jooy googa góor ma lank lang langal duma baal wam sesin danan layoo musiiba mu rëy mi ma joor katan gu rëy ga Bamba yoroon moo waral mu xattanoon amaanatulayil xadiir mboolem ku mos ni cës bi siggiwul daam rekk moo ko yëkkati wey lii du duur ba tey aji dox jóggiwul tànkab jëfam ca mooma lef bul ko jéer lim jëf ci diine soo ko natoon ci yaatam nga wax ni am na junni bi at doora buur ci at yu néew la jommale mag cig matam sañ tay basil seere la ca waa kajoor sellam ga cig magam dañu gis cig rawam kuñ leñ bët ak ndawam ku du yow dootu leer farleen cawaada wayu bi kayum na kaw tegum na lambi suuf da ba seeni cuur ku sóoru won su xam yi mu teg cib kayam sab jël bir wallaayi kiley waa da piir ku tol ni Ibra Faal ku muraam cib xëtëm waree su koy tëggaale bu leen weddi buur ku tol ni yibra faati mbégam góor ña kay bër mum tasel ku dul mi le doo ko yir ma del si may gi ma seex bamba may géwal na sax ci woy bu amee ngeen jigéer solay taggam yu waaju ko mus doo selaw man maa ngi mbel mbeli niru aw xandanduur soloy taggam wi kum ko musal doo nelaw maa daa xafook su njël ya fa ndar ak fa mbuur solo yi tagam wi mooma yabal kër yonen siyaare naa yonen sogaaj fooni xeer solo yi tagam wi tax na maaj sëñ samat moom seex Suwaybu mooma yabal yoon wu leer solo yi tagam wi mooma defal ay tabax moo tax ma fàtte laaj ci ak yu nduur danaa ko ci fadigu bu rëy bim ma may ngir moo ma teew ndeelu di xaaraani buur man baas dumay faseeki dagam moo waral mu xëy ma jox ngëneel yu ajul cim ndajoor taxawlu naa bi sëlli alal Mustafa rabbi ta dolli may ki ma may wayu leer taxawlu naa bi sëlli alal Mustafa rabbi ta dolli may ki ma may wayu leer allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam